salaamaaleykum salaamaaleykum mbokku internet yi mbokku SBT Média ñu ngi ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay tey ñu ñëw leen fii si Bargny journée sëñ Modou ñaa mu woote suñu papa si mu ñaa production woori ñu boole fi ay xale ay ndaanaan yu doy waar ak grand combat rek moo tax ñu diggante Saloum bu yëmbal ma ne ak petit Baye Fall baax ñaari xale yooyu ñaari ndaan di muy mbokk internet yëpp nag bàyyi wuñ kenn maa ngi fekk ma jina cameraman kan maas ko jox wàccuwaay bu wér di doxalal ñu dem si biir xool xale yi xool tuus bi xool bàkku yeeg lépp sant bu wér a wér fay nañ jàmm ji waaye góorgóorlu rek tur bi bu Ndakaaru ñu naan ko Boy Tivaouane Peulh waaw Seck bu Ndakaaru ñaan Boy Tivaouane Peulh waaw noo ñëwee tey waaw tey wax dëgg yàlla ndam laa bëgg parce que dama yor ay booy dañoo nekk ci defet fi mu ne nii Tivaouane Peulh dafa am crise daal te booy maa leen yor waaw maa di formé ci wàllu làmb ak lépp moo tax fi mu ne nii nag man maa bëgg a lijjanti affaire yi ñëw tegaat ko seen loxo wala ne leen yoon bi lii la rek moo tax xale ñëw takk ngeen ma maanaam yow miy mag tey da ngaa war a ñëw pour ratifier xale yi wane def li a nekkoon du loolu lii la waaw ah, merci beaucoup waaw jërëjëfati waaw xooyaan ko dégg séeréer loolu laa bëgg tey ma bëgg a def lu leer ba pare waaye yaa ma a xam xam nga ki ngay bëreel waaw ki may bëreel nag xaw ma ko de xam nga nga jël ko non xaw ma mais mënu maa wax dëgg yàlla bëre naa ku ne damaa jàng bëre quoi waaw dama ko jàng te ba muy bañ ko waree jàng laa ko jàng noo ñëwee da ngay bëre wala da ngay xeex waaw fi mu ne nii nag moom laay xool rek waaw lu mu indi nag da ko ciy fekk mais damaa bëgg a def fulla li ma li ma entraîné. daa bëgg a ñëw rek tek ko ko waaw bu ko attanee nag ma déglu ko. bu ko attanul. bu ko attanul nag ma ñibbi wax dëgg yàlla du ma fi yàgg sax ci kàttanu yàlla. kon bonne chance. waaw jërëjëf dundal. ma maa lay fay. naka jàmm ji. sant rek. tur bi. bébé si Tafa Coor. écrit waaw noo ñëwee tey. tey ndam rek. ndam rek bésu jigéen yi moom ndam rek laay fayee sama yaay. bi lay wax da ngeen xew de. waaw ñun te day continuer incha allah. bilaay wala jigéen ñi loo siy wax. bésu jigéen la fas am ndam di dem tëralee ko sama waay sama yaay. war na de waaw tey moom si SBT Média. waaw waay sant rek yéen a ngi liggéey quoi yéen a ngi liggéey lamb carrément quoi yéen a ngi sukkali lamb jaayo fi ngeen teg seen tànk ki ngay bëreel man xaw ma ko. loolu du yëfu hmm? mbër bi nga xam ne day gàddu saakam dugg si àll bi di mbapat yi di jël ay nag loolu jaaxalu ko. bilaay walaay lii mooy sama troisième combat quatrième combat. waaw ñaata victoire trois victoire. tey mooy quatrième combat waaw ñaan yàlla mu defalaat ma ni ma doon defalee rek. bonne chance merci waay. waaw ala fay. dara jaamu sant yàlla bu baax ci état de forme ah nañ fépp. bilaahi teg ñu si yoon rek. ma fi bàyyi ne ak sëñ Bamba. bilaahi xewal da ngay boole. ah xewal da ngay lépp laay def. pare naa lépp gars yi waajal nañ ma lépp nag. waajal nañ ma lépp waajal sa adversaire. xam naa ko bu baax. xam naa ko bu baax. xam nga ko bu baax. sa après lay comprendre. après lay comprendre wala suba. bon sens. noonu la demee nag billaahi noonu la demee rek. li nga bëri léegi. non li ma bëri nii du dara amoon li moom du dara. yokkal kàddu bi. li ma bëri nii moom du dara moom dañ ko mën a xale yu bëri ñi yëpp a mën a bëre. ñii si ginnaaw ñi ñoo ma daa bëre fuuf. si ginnaaw ñoo daa bëre. waaw billaahi wala ñoo ma daa bëre ñu ma mën ñoo nekk fi bëri. xam nga autour gars yi promoteur daal ñoo ñëw geesu jeunesse su bëri tëggal leen combat si stade bi xam nga mbëri bari ñu mën a lancé wu quoi maa ngi gërëm waa écurie Tëngéej ma am ñaaw ñëpp maa ngi gërëm di gërëm coach bi di gërëm ñëpp naan naan di gërëm ñëpp di gërëm Baye Mandiaye dégg waaw. bi mooy sa ñaata combat. bii mooy sama premier combat. sa premier combat waaw premier combat nga def lii. waaw. foo jëm. non fi ma jëm fenn la. lamb yi adversaire waaw fay naa la. jàmm ji sant noo ñëwee. forme ànd ak samay mbokku préparé yow. combat bi combat bu ma respecté la. ba taw ci yeneen combat xam nga damay doog a débuté. te damaa war a ñëwee doole. balaa ñu maa xam dëgg mat laa lekk waxkat bi ba pare. nan laa lekk waxkat bi. waaw boobi daa bëri wax. foog ma ñëw pour bëri wala da ngaa ñëw pour xeex wala lan nga ñu tey. lu ñu lu mu andi mat affronté ko amul lu may si moom. amuloo tiit si moom non non. que tardé wu si la yaa am bu ñu xamoon si mbapat bi si sa premier combat lu war a loolu. non damay doog a maa ngi doog a laal si arène bi mais mbapat bi laaj ma. la xamul kay ngay wax. nice waaw. kon bonne chance. waaw ah, na. fay naa la Idi sama doom yaay. naka jàmm yi waaw tawféex. noo waajee tey. waaw ni ma daan waajee rek ànd ak samay mbokk sama xarit sama waa écurie sama am di jàmm. waaw waa yëmbal yónni ma yaakamti ma. dara mu xale bi ngay bëreel kan la. waaw naa ko nii nii nii comme ni ma xamee yeneen mbëri rek wax dëgg yàlla jox naa ko cër bi moom tamit waaw daanaan bu nekk si yow bu ne mu ngi si moom. waaw loolu kon day neex loolu njar la loolu njar lay doon. ñu gis Yeumbeul Marin fan yi mu xaw a nekk si jafe-jafe tuuti dafa mel ni da ngaa ñëw pour rectifier xale yi. waaw non du sax du question tolof tolof tamit mais nag suñu borom li mu nam rek mooy loolu yàlla baax na ñun daal waaj nañ dañuy ñëw ut si suñu borom bi mooy joxe ndam ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam bu kawe suñu jor. mu indi day bëre wala day xeex. ñaar yëpp laa indi soo bëggee dégg dégg nag billaay wallaay ñaar yëpp laa pare je suis pare pour tout. ban message ngay lancé. li may waa yëmbal yi prochaine fois su seen doom suy génnati di bëri grand combat nañ ko jàppale te yàlla tax képp ku ñu seetaan tamit ñu ngi sàkk su moom ñaan mu ñaanal ñu yàlla lafal ñu cat may ñu ndam lu sedd buy ak bépp mbëru yëmbal bu ciy bëre tey ak bépp mbëru yëmbal benn baraak Malika Kër Massar buun bu am combat yàlla na la yàlla may ndam. SBT Média. waaw naas lii moom suñu yëf la bu ñu si laaj sax suñu yëf la abonné wu nañ bu yàgg loolu information yëpp fa nañ koy jëlee leer na waaw son yi nice qualité image amul fenn. waaw bon sens. waaw bon doom day. fay naa la. oui fay nañ la. naka jàmm ji. ñu ngi waaw. Daaru Gëm sa bopp bu tënkee. sa bopp tënkee. waaw. ndam rek. ndam rek lañ ñëwee. est-ce que Boy Gueye xam na ki muy xam ah. soxlawul xam soxlawul xam te muy daanaan comme yow jël sa avance. waaw la làmb la jarul koy xam man li ma intéressé mooy naa ñëw bëre daan dem. da ngay xeexal da ngay bëre. lamb la rek lu mu ilaaj rek ñu def lool yeah lu mu. message ngay lancé si promoteur yi. waaw promoteur bi comme sëñ si euh, sëñ Modou Niang ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax ne fu mu ko teg nii bu mu ko bàyyi quoi na ko jàpp bu baax a baax yeneen promoteur yi tamit aussi nañ ñëw jàppale mbaru Tëngéej ji. kon bon sens. waaw ma nuyu naa la. siyaar naa la. naka jàmm sant rek. waaw maa ngi nii rek. ah booy ñooy daw sama avance tey yàlla def na ma. ah non raaruma sax. waaw ah, maa ngi sant waa Tëngéej ñëpp di leen gërëm di leen woo si combat bi ñu def seen doom ñaan waaw di woo waa Tëngéej waa Casamance fépp bàyyi ma fenn waaw yow nag di la gërëm. di wax ah, di wax sama adversaire na ñëw tëddal boppam rek yàlla may ma ndam. loolu mooy lan waaw ah, du tëddal boppam. loolu mooy mel ni moom amul ay entraîné wul. si SBT ah, kontaan si ñoom rek parce que lii dafa rafet initiative bu rafet la eh, tamit xam nga dañuy ñëw si làmb ji dañuy heure te teel a ñëw comme lii kontaan nañ si bu baax a baax di lay ñaanal nag gudd fan ak wér rajo bi yokk si kanam a kanam a kanam. mais bëgg baax a baax. siyaar naa la. jàmm ji sant kay. tur malal la. malal waaw. malal tey waaw ñëw jàpp ko daan ko rek. tey sa ginnaaw ay petit ñaa ay rëm ay ñun ñum daanal yooyu nekk sa ginnaaw. ah parce que booy bi dafa bari wax nee na mag laa bu duggee moom laay bàyyi ak laa mujj rek xool ko lu muy def bu ñëwul man ma dal ci kawam. bu ñëwul ma dal ci kawam. bon sens. waaw coojiwul. naka tur maa ñëw xaama ñëw xaama ñëw. naka jàmm ji sant yàlla kañ. naka tey sant yàlla bu baax ma waajee tey. waa ñaaw bu baax ma ak samay mbokk ak sama waa écrit waaw di ñaan yàlla may ma ndam rek. xam nga ki ngay bëri. waaw xam naa ko mooy bërëb bu baax bu baax xam naa ko bu baax. xam nga ay qualité non ma nag ay qualité waa ah. waaw làmb ma boole moom. te damay ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kawam. Ah. waaw looy SBT Média. non xam nga rek lii ñuy def ni dafa naaj ndax day dundal làmb ndax xam nga rek télé yëpp bu doon def nii gaan làmb ba léegi dem na si kanam. waa xama nga di leen ñaanal tamit ñu yàgg fi te wér. waaw yàlla jàppale leen. bonne chance. waaw merci beaucoup. waaw ah, jeexee rek. waaw. sant na. Lat Dior waaw bu ne Lat Dior. Lat Dior waaw bu Kajoor. noo waatee. ah noo waajee tey. defal gan gi bagage rek incha allah waaw yàggatu sax. loo ko may mu jël sa may dara. waaw loolu àggagun si ñu ngi si biir si biir lañ jëm yàggatul. incha allah yaa ñaata bii mooy premier combat. premier combat waaw arène waaw. premier sortie ah. sama bopp def si lu waa Kajoor gépp. billaahi kon bonne chance. waaw taw féex rek. waaw bëgg naa la bu baax a baax. MC lan la. la nekk. waaw mais dama nekk sama rukk. te lool dama ko bëgg a ci kanam léegi ci ay seconde quoi. est-ce que MC xale yi yi lay jël xam nañ la. waa xale xamuñu ma loolu moo tax nga wax ko quoi xamuñu ma. dé après la ñuy comprendre xamaguma billaahi maa leen njëkk a bëre. billaahi bul comprendre nii. MC ngi nii. waa la amul leneen. <laughs> dañ koy ngoñom ngoñomee léegi. non li li la koy dégg wax barki rasulilah ngoñom ngoñomee la déggoo ma de xale loolu lañ ma yeen loolu la yem loolu lañ ma yan instant nii mënul wax ba dama ngoño ngoño mais kon ami 2020 mi MC ko moom yow dégg ma waaw eh, eh, eh. ah, maa ngi lay fay yaa xam naka jaamu waaw ah, jaamu jaay yaa xam dë yaa xam dë loo waajee tey loo waajee waaw coach yi laa àndal rek gars moom xam nga lu li gars yi wax rek loolu laay moom incha allah première la yaa xam na nag muy bëre ki may bëreel non jarul xam moom wax dëgg neex yàlla jarul xam tàmm loolu quoi jarul xam jarul xam yàlla yàlla yàlla sotoraal rek. yaa xam ñu doon gis si mbabat ma la ñuy gis arène tey wala beneen yaa la ñuy gis. bi ka raw. mën naa gis mbabat mën naa gis tey. bi ka raw gis tey incha allah si kàttanu yàlla. yaa xam li la daan topp mbabat anañu. li ma daan topp mbabat. li a ngi nii. li ka anañu ka raw a ngi nii oh li a ngi nii. billaahi li ka raw a ngi ñoo tax nga ñoo tax ma ñëw fii. amin waa ñu ngi lay fay. waaw sant yàlla bu baax a baax. waaw ñu ngi sant bu baax. waaw ñëw daan ñëwi rek incha allah bu neexee yàlla gis nga mboole yëpp maa leen indi. xoolal lii tigre ma lii tigre xoolal ma tigre indi moo indi lii tigre dafa indi lii. lii lan lay des si mbër mu ndaw. waaw xam nga rek yokku jom jom billaahi yokku jom bu baax. waaw moo tax xam nga rek lu ñu liggéey rek moom la ñu appliqué incha allah. bon sens. waaw noonu la demee yow. sant yàlla bu baax baax. tur bi Thiatou Sida. Thiatou waaw ni nga ñëwee nii lan la. nii ah xanaa dal ak teey rek ak ànd ak sumay mbokk waa Fass Mbao waa Bosco Sow Sika Mbao waa Mbede Fass rek moom laa ñëwee ak ñaan yàlla yàlla may man ndam. daan gis caatu Siteu mbapat tey ñu gis caatu Siteu arène. waaw est-ce que daan gis arène mbapat moom la ñu indi arène wala déet. non maanaam lu ko raw parce que arène ak mbapat am na différence tuuti. Ah. waaw mbapat maanaam arène maanaam day laaj yokk cere doole ñeex maanaam maanaam arène. yow loo yokku doyul. kon bon sens. ok incha allah jaaf. maa ngi lay fay sama gaan Idrissa. naka war. sa dugg tedd rek Baye Fall. la jaamu ji. nii rek. xam nga Baye Fall ni nga ñëwee nii tey lan la. man la petit Baye Fall no stress. barke maam Cheikh Fall. jigéen ñi. cam neexul sama yaay Fall rek. loolu du yomb de. ale boo ko am na retour bàyyi ma daan waay ñëw ñu wax sax moom yaatu ma ak yow. parce sa waay nee na moom tey loo indi mu raw mu nga denc di la xaar. laa kii maa la man arme bi biib moon na ko man xale laa du ma ko xaar muy def dara arme bi ne biib ma dox si kawam bëre li ma ko waxoon signature ba laay dëggal incha allahu rabbi j'attaque je frappe et cetera. moom lan la fi def. su bi biib. ba dëgg deexul. ak King Baye Fall. merci Guèye. <laughs> nañ la bu a baax. Petit naka jàmm waaye sant yàlla bu baax a baax. Petit Niang fan nga nekk. maa ngi ne fan nga nekk. maa ngi fi maa ngi laa tudd. Grand Niang waaw. kon na ngaa màgg léegi. na. waaw Petit Niang sa combat ñu déggoon ko fi. Mm. mu yàqu lu ko waral. non loolu ay détails la yàqu na bon xam nga mënuñ see ñëwaat di chaque jour di ci wax di may mbër mi ay ay ay ay riir ak yooyu noonu waaw lu waroon lu am na rek amul. waaw man yàqu wóor benn mbër moo ko yàq non loolu ay détails la gars yi ñooy wax rek. Ah, gars yi ñooy wax foo nekk di wér ba ñëw benn loolu ay détails la gars yi ñoo koy wax rek. ah ñu ne dégg nañ ko. loolu gars yi ñoo koy wax rek. bu di man maa fi rek. gars ku ma lam boolal la bu ñëwee ñu bëre. comme ñan. na ñoo xam ne say adversaire lañ Petit Niang nag. na mais xam nga ne gars yi koo fi tudd fii tey boo doon yi xam nañ ma xam nañ leen. war na yàlla. l'an 2000 mu ngi fii amul combat na ñëw ñu bëre. waaw l'an ñaa kon waaw waaw lay wax si waaw waaw kontaan si ñaanal yokkute bu baax a baax a baax. billaay wallaay. dinañ def ñëw seet si la. waaw coow ji waaw ñu ngi sant gis ñu la. fan la abondooy nekk. non maa fi maa fi maa ngi fi de am naa combat de. laa ko doon si ruq rek. waaw mais instant am naa combat maa Boy Maroon taxaw na. maa Boy Maroon taxaw na. waaw le 12 avril. jour combat Jara 2 ak Mbaytin waaw. abondooy looy looy lancé si SBT Média. waaw muy gars yi daal nañ gën a defaraat rek ba pare li may lancé mooy waa buun waa yëmbal waa Malika nañ booloo ñu jàppante te xam ne ñeneen ñi mënuñoo màttan ñu ngi mënuñoo màttan ñu ngi màttan suñu biir dara jaru ko te ku ciy jàppale tey parce que suñu paa ñu yoon ñu Malika la dëkk bàyyi ba Malika ñëw ba buun yoon ñu kon war ñoo bëreeg ay njabootam waa Malika kon nañ booloo suudewu ñun ñëpp li Pikine am bi Guédiawaye am ko ñun nañ ko am ngala nañ ko ut ba am ko muy armée muy général muy petit muy biir réserve ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nañ leen defar lu foofu di wax nag waa buun nañ ñëw jàppale am naa combat may doomu buun yaakaaruma ku dul waa buun nañ ñëw jàppale ma bu baax a baax a baax a baax ak sama turandoo Aba bu TFM chaque jour ma woo ko combat bi na dama koy jox di ko ñaaxal bu baax a baax a baax a baax mi ngi ciy jàpp na ci gën a jàpp bu baax a baax soxla naa ko waaw. ziar naa la. yaa ngi ziar naa la. delloo ziar. nga daan la sant rek di def sa bopp champion. non daf ma sa bopp champion sax barke Serigne Touba. di ñoddi lu waral loolu. non ñoddi ma mais dafa jot suñuy grand mais ñu chance ñu bëre. comme ñan. ambulance bëgg naa naaru sogaas. non mais man instant lu ma bëgg a wane si pongali laa ko bëgg a wane. bëgg a wane si pongali. barke Serigne Saliou. guy ma loolu dis na de. guy ma du këriñ. ponkal duñ dara billaahi ñun ay xale lañ dañoo nekk si yoon barke Serigne Saliou xam di sant waa Mbedd Fass yëmbal buun bi di ñaanal sama doom lay abaa borom la du suñu borom dafa la di ñaana sama grand tamit Saloum suñu borom suturaal ko may ko ndam ndam bu sedd guy waaw Saloum borom baax la mooy lool bonne chance waa waaw ciao maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. bii mooy huitième journée waaw waaw ñun loolu moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy fexe ba chaque saison ñu bëre loolu le maximum de jeunes lutteurs parce que loolu mooy tax suñu demee ba ci fin saison bi ñu gis ne ñi dagg seen licence ñu bëri bëre nañu loolu mooy suñu objectif ñun fu ñu ko mën a defee nag muy Bargny muy arène nationale muy feneen fu ñu mën a génn def ko fa dinañ fa dem def ko fa waaw bu ñu fi jógee war nañ dellu siwaat fii le 14 samdi bu ñu fi jógee le 22 dañuy dem arène nationale le 29 war nañ dellu siwaat fii bi soobee yàlla donc loolu mooy suñu programme daanaka chaque weekend rek am nañu làmb bu ñu amee fu ñu ko mën a tëggee jërëjëf jërëjëf merci merci beaucoup merci. ana waa Yëmbal waa Mbakke yaa fi ana ñu ah. Saloum 2. ayca ayca Saloum 2. ñu ngi Saloum 2. ayca Saloum 2 ñu ngi doon. doomu Yëmbal jaa ngi noonu. saalum bee doomi ma laay mooy waa déggal ay salim dooy ay ana waa yobal ay ñi bëgg saalum dooy hoo ana waa ma fi aadi la lay cili ee mi mër ñëw na dëgg mooy ñëw na ñëw na Ngom Saloum a ngi noonu tuus kon ak yëmbal manee ngi noonu tuus ñu gis si côté ñu gis si Boy Pire gis si Diop 2 Diop 1 gis si Rëm gis si abandooyu oh, gis si ndaa padi ñaa gis yooyu dar ko kon ñu bàyyi Saloum tuus sama xale yi lañ tuus mooy Ama Ndoye ba mooy Ama Ndoye Lamara Kaaju waay ay waay Lamara Kaaju oh Lamara Kaaju lam bëre rey na daa ne coppe tànk bi dawar taasoo dëj ko ginnaaw ngemb ngemb bu maron bi doomu tëgg leen jàkkaar lool mooy dóor noonu nee fer mu ngeen ko ne ne abonné seen internet SBT Média ba seen tuuti notification kolos waa Adama Seye man na fay na mën naa la wér Ndeye Ndiaye nee ma cinquante euros Ndeye Ndiaye sama jigéen nee na ma cinquante euros si wax ji bi jox leen ñoom ñaar ku ne avertissement leen bëri leen waaye Idi ñaari xale yi bëre li taxu leen a jóg ña ngay def déplacement latéral waat encore nday jaay sama jigéen mel ma fukki euro ay ñu ngi xeex jàppante waat nañ ñaari xale yaa saaka ba doomu tëngeej nee naa leen fépp fu lamb am fu mbër nekk daa ko jëli seenu sekk waaw bëri dañoo war a bëri nag seenu sekk bëri nañ nañ bëri nee naa leen fépp fu lamb am SBT Média dina dem jëli leen ko ak fépp fi nga xam ne mbër fa la ne muy mbër mu naw muy mbër bu mag bu askan bi bëgg waaw ñaari xale yaa ngoog arbitre toogal dama nekk si direct SBT Média daa xew ñàkk koo seetaan risque ay ñaari xale yaa ngi ne suuf doon na ko cabaxal mu at bi woo na la si diggi géew gi idi ñaari xale yi bëri nañ de idi ah, doomu tëngeej ak ki nga xamante ne nii mooy saaka ba waa sama jigéen sama waaw waaw xale yaa ngi noon di wane seen bopp kaba ak doomu caatu tëngi doomu tëngeej Kaba ak doomu Tëngéej ñaari ndaanaan ñaari xale ñaari champion fii di SBT Média war a sen seen bopp ay bëre leen lambu day neex lambu day gaaw kon bu leen ñu fi tardeel combat yi jaare fa gaaw bëre leen jóge fi waay bëre leen jóge fi waaw lamb jooy na weet du yaay kat yi ñu koy ñaanal suñu borom xaaree ko si àjjanay firdawsiya ñam fa fekk ak ña ko fay fekk ñëpp moom duudi yaay kat yi duudi yaay kat yi koy ñaanal suñu borom xaaree ko si àjjanay firdawsiya oo oh, kaba ak doomu tëngeej doomu tëngeej la kaba ba ci ba ci bërëgu ngembali sax ginnaaw mu daw na ŋoobu taxaw daw na beneen loxo ba mu mu def si përëgu ngeem bu di si dënd bi dool ñi fii ëñ sukor bi am na fi ëñ am na fi ëñ tegal seize am na fi xeetu jël yi foofu mën am bari na waaye xale yi dama mel ni buñ bu kuy tàkkee seen xel mi lay toxu waaye bëri leen waay bëri dafa mel ni dafa mel ni bu muy tàkkee leen waay bëri leen waaw ëñ nag caxabal waaw jaadu na jaadu na jaadu na jaadu na waay bëri leen waaw bisu jigéen ñi caxa kawa naa la ko oh daga caxawal kaba tew lali ko lali day gersu lali day ànd gersu Kaba oh tey bisu jigéen ñi la ji sargal jigéen ñëpp waaw di sargal jigéen ñëpp rawatina seeri Omar bu Kobra Fête danger an koy sargal bu baax a baax di ko jox wàccu waayam fanjaay seeri Cheikh Mbacke waaw kooku fanjaay séeri Cheikh Mbacke moto di ko nuyu di ko ziar waaw Ada Serigne Mor Fall Fall mi ñaari Fall yi yàlla faale nuy naa leen bu baax ziar naa leen ndax naa seen wàccu waay tàmmuñu ko dañ leen ko war di tàmmal ci bu ñuy contact oh Kaba mu ngi forcé Kaba fàq nañ la mu rëpp Kaba Kaba na kat Kaba Kaba daa mel ni def nga kat ab bi ah, ma bàyyi arbitre bi wax Kaba fi nga nekk ba wóor na. kaba fiñ la mbaar ba wóor na kaba oo oh, caata doomu tëngee daan na kaba doomu tëngee daan na kaba doomu tëngee daan na kaba doomu tëngee daan na kaba oo oh, doomu tëngee daan na kaba doomu tëngee daan na kaba xale yaa ngi noonu doomu tëngee daan na kaba salaamaaleykum mbokk SBT Média yaa ma ngi noonu di ñëw yaa ngi noonu si géew gi oo oh, xale yaa ngi def lu doy waar wala ma yaa lam def yaa daa sol daal ba coqati ko coqati jël ko yërndu ko si fenêtre ba jox ko kamu ñaari xale yaa ngi ci biir géew gi ñaari xale yaa ngi digg géew gi ñaari xale yaa ngi digg géew gi ngi ñëw de présentation ñaari xale yi ndax li ñuy wax rek waaye ku daanu rus di wax ndaanaa ni fi bëri bëri na di wax xale yi def leen ndànk takk der yaa ngi yéeg si kaw xale yi def leen ndànk xale yi def leen ndànk takk der yaa ngi ñëw ndax yéen ak takk der yi du yomb xale yi def leen ndànk lii fo rek la xale yi waaw xale yi fo baa ngi noonu oh yaa xam a ngi dem ca kot suba yaa xam a ngi dem ca kot suba xoolal ma tribune bi nii dafa taaru ni ngeen def nii dafa taaru rafet toog leen nii fo mu jeex ñi daanu daanu kiñ daanu daanu c'est le maire li sport la li sport la oh, li sport la ñu gis waaw waaw nee nañ ko sumil caq bi waaw ma de la soirée waaw papa Pambaay nde yaxama ngi fete ñu mana la ngi fete ma càmmoñ mana la indi loolu mbay xam ma xoolal ma yaa xam la indi ma mala la ngi noonu at yaa ñaari xale yaa ngi si biir diggante yaa xam at malal yaa xam la nag yaa xam bi moo nekk caaro yi yaa xam deux bu un bu baal waaw yaa xam at malal yaa xam nekk écurie jaxaay malal nekk écurie Mansour Mbaye di ndaanaan waaye yaa xam tam kenn du moom di ñaari xale at bi beneen wax ak yéen saa kuy fekk wul kenn yéen a koy fekk waaw sifle moo leen boo laaj na ay juge am waaw nee nañ ko pare mu ne ko waaw sifle na oh yonte yaa xam doo bu jaxaay at ñoor waaw waaw arbitre sifle na sixième la soirée malal équipe Mansour Mbaye moo wone ginnaaw ki nga xam ne mooy yaa xam doon nekk fee si écurie ñaa xurab muy ñaari xale yu làmb xel ñaari xale yu doy waar. en direct si SBT Média. di nga en seen doom seen xarit Babacar waaye Idy kenn du yow. kenn yaa ngi def liggéey ba kenn du yow. yow Mbawu di faa nag noonu sama doom yaay. diggante yaa xam yaa xam yaa xam dóor yaa ngi noonu oto na ko maas maas replier eh jixaat raak raak yaa na ko xeex xeex oh xale yaa ngi xeex xale yaa ngi raak xale yaa ngi raak xale yaa ngi yaa ngi raak lu doy waar xale yaa ngi raak lu doy waar ñaari xale la ñaari ndaanaan waaw war a wane seen tey ngoo xale yaa ngi raak xale yaa ngi raak raak raak lu doy waar xale yaa ngi raak lu doy waar xale yaa ngi def raak oh oh eh oh waaw ar bi sifle waa lii la la lii dafa sifflé mu dew takk ko bi ko takkee da ko daa ni bopp bi dafa am lu si nekk waaw bopp bi dafa am lu si nekk oh bi dafa am lu si nekk bopp bi daa am lu si nekk ndax yaa xam nga ne kot sëm oh lii damay fàttali lii wulli sa kam bi ñu ngi luru ji jaajëf Passa ma nga feesa feesa ak fee nga xam ne mooy États-Unis kii may nuyu naa la siyaar naa la ba wér waaye ki nga xam ne mooy Malal ne daa mel ne daa wax day miir de. Malal Malal yaa xam da am dama si yaa xam da takk ko kott ko yéeg ko gis Potignan sama ginnaaw di daw Potignan ngi noonu dem. oh Malal Malal daa mel ni mënatul Malal a ngi Malal Malal a ngi noonu Yakham a ngi noonu Yakham a ngi nii Malal a ngi nee si géew oh. ñaari xale rëma ngi noonu ànd ak ñaar doomu ndeyam oh. ñaari xale yaa ngi noonu Malal Junior Malal a ngi noonu Malal a ngi nii di ñëw Malal a ngi nii di Malal yaa xam nga ci digg géew gi di ko xaar yaa xam nga ci géew gi di ko xaar course bi jox na ko ndox bu kalax ndi ko tuur eh, mais ku yi mel ni mbàccam gerte moom faaw ñu koy xoolaat waaw waaw scorpion ndaanaan champion bi eh eh arbitre bi lu mu def nii yaa xam wala yaa ngi sifflé bu leetoo ñoom ñaar yaa si at yaa xam o xale yi def nañ teg di leetoo di direegu waaw fii ci SBT Média yaa ngi noonu alaaji maasang ci caméra bi maasang ci caméra bi jina caméraman kenn du alaaji maas dina caméraman yaa ngi noonu jàppante nañ ñoom ñaar oh ñu ngi rokos maas ngi rokos leng ngi rokos nga jàppante nañ leng sa ngi rasu waaye kii di yaa dëbb naax leng daa arrière ba saaku yi yaa xam añ na ko arbitre sifle waat na arbitre sifle waat na diggante leng sa ak yaa diggante Lengs ak Yakham Lengs ak Yakham waa deux avertissement pour Lengs arbitre bi sifflé waat na arbitre Lengs ak Yakham ñaari xale ñaari ndaanaan wala seen bopp tey ñu ngi fii si sbt media point xale yaa ngi noonu di lewtoo xale yaa ngi direeku Lengs at yaa xam mi ngi bàyyi ko Mansour Mbaye yaa mi ngi bàyyi ko Jaxaay oh eh daa mel ni yaa xam dugal na ku yaa dugal na ku yaa dugal na ku yaa xam ne Lengs Lengs arbitre bi nga taxaw bëre Lengs arbitre bi nga taxaw bëre xeex raak raak ñu ngi raak oh xale yaa ngi raak waay xale yaa ngi raak waaw kon si ngi foofu kon si booy oh. soko sima ngi soko sima ngi xale tëngeej yaa ngi fii diggante Lengs Eh, eh, eh, oh yaa xam kof na kof na ko yaa xam kof na ko yaa xam da kaa kof da kaa kof rek daw daw daw daw daw caatan ko da kaa kof daw caatan ko da kaa kof daw caatan ko yaa xam da kaa kof daw caatan ko morceau yu xonq yi rek que le meilleur gagne. yaa de gaat yaa de gaat Samba yaa de gaat jaayi. mbër bu xonqee di ko teeram ko mbaa mu yaa de gaat Samba yaa de gaat jaayi. mbër bu xonqee di ko teeram ko mbaa mu yaa de gaat jaayi. fekk Ndakaaru ak MC Mbeur ñaari mbër ñi ngay lewaatoo lewaatoo ba gaaw na laay lay la laa laay lay la laa ñi ngay lewaatoo laay xeex nañ laay Ndakaaru Seeku Ndakaaru raak na laay lay la laa ragal naa Seeg gi de oh, segg li muy xalaat laay laay ragal naa segg. ragal naa segg bi. idi ragal naa segg. eh mais segg jam bu lay jam. laay laay segg lu jaar lay jam. mais xoolal ma taxawaayu segg bi xoolal ma taxawaayu segg. waaye MC nee na tekk rek ndeysaan. daf may fàttali jati daf may fàttali jati jati. laay ndeysaan. Oh, oh. laay laay. la. <laughs> laay ay Pape Diagne Seras mooy def lu ne waay. laay lay la laa. Ah. ñaari xale yaa ngi noonu. ñëpp kontaan nañ ndeysaan. ndeysaan bi ñëpp kontaan nañ. non c'est que c'est que taxawaayam bi dafa doy waar. ñoom ñaar ndeysaan ku nekk daal di jiital pied pied droite. waaw nañu carte normale lañ teg. waaye Seck dafa am ndox tuuti am na day dóor MC sa MC du fayu. Oh, Leewtoo ñoom ñaar Seck Seck ngi teg waaye MC ngi dox pas par pas Seck. aussi eh mais Seck Seck li muy xeex jàll na yoon ah Seck mi eh mais eh! Seck eh! la dem lay lay la la Allahu akbar Allahu akbar lay lay la la ay Seck li mu dem di lan la nii di Seck gis naa Philippe Palam Philippe Palam lamb Philippe Palam am na lay lay la la ilaha illallah waaye Seck a ngi noonu arbitre saa ngi ne daan arbitre baa koy dee Seck Seck a ngi noonu Seck ak MC Seck ak MC ñaari xale ñaari ndaanaan fii si waaye Seck kenn du Seck waaye kenn du MC ñaari xale yaa ngi ragal naa ñoom ñaar bu jàppante laa mu jeex de waaw xeex nañu xeex nañu xeex nañu ndax dóor bu daanu la. aywa xoolal mu daj xoolal mu daj waaye. Oh. segg segg segg la dem lay lay la laa ah. segg. segg gi noonu. baa eh. ngi nii waay. Eh. Oh. Eh, xeex nañ xeex nañ ay kenn du segg waay. xeex nañ MC daa bëgg a yóoru ah. laay yóoru segg gi doon waay. lay lay la laa segg. waaye xoolal ma Seck dama dem tànk ya dem laal ba dagg la leew dooba waaye kenn du Seck waay Seck dagg la leew dooba waaye ay Seck mbër bu mag la kenn du Seck laa ilaaha illa Seck MC Idi waaw ma combat bi laa jox benn meilleur combat de l'année laa il bii mën naa mooy meilleur combat ñoom ñaar. arbitre ñu ngi bëre waaye leen. arbitre kay ñaar ñi amul lenn loo leen di ñaar ñi amul lenn loo wax ñoom ñaar ñu ngi seen combat ñu xeex. bu dee ñaari ponkal yi di jaa sang di puusante rek. lay la <laughs> laa. waaye xoolal ma tànk segg yi. waaw ah, segg la muy bëre moo di yàq. Eh, eh. mais mais mais eh, xoolal ma segg yow xoolal ma segg comme karatéka. waay ilaha illallah. waay Mor Fall adversaire Mor songu.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 bëre na Boy Gueye moo ñu woon ginnaaw dafa si dafa toor moo mooy ñuul ñuul bi mbëru mbapat bi moo mooy mbëru mbapat bi Boy Gueye moo ñu woon ginnaaw dafa si dafa toor nañ jàkkaar lool dafa si dafa tuddee nga sa bopp mbër mu mag Boy Gueye mais ñu ngi xeex ñoom ñaar xeex puso machine bi bëgguma ko oh eh, bëgguma puso machine bi mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am eh, waay dina la nii xale yaa ngi caat mooy gëy bébé si dafa jàppante ne ñoom ñaar Babacar wala xale yi ñu bëre waaye xeex bi bébé si dafa mooy gëy oh bébé si dafa daan na ko bébé si dafa daan na booy gëy Bébé Siteu ma daan na Boy Koy jël bu rëy mbëru mbapat la mbëru mbapat la mbëru mbapat la daan na ko jël bu rëy rëy rëy rëy daa ko tàng na daw yokk ko jot ci kaw saaku yi da yaa ngi noonu da yaa ngi dëkk naa combat bi diggante Saloum man ma ne ma di bàyyi baalu fekkee ma si boole ñaari xale ñaari Ayo, Thank you.

nuyu ma nuyu ma Modou Modou Bamba Cissé nuyu ma ko. Modou Bamba maa ngi lay nuyu. ndeysaan moog Salif moog Salif. Salif dina ziar. ndeysaan doomu ndey Salif doomu ndey Babacar. ndey Babacar la. Salif di ko ziar bu di ko jox wàcc waayam. yéen da ngeen ñuy safoo. Salif mooy borom la 5 mars. Salif borom la 5 mars. waaw Salif loolu foor na. borom la 5 mars. yàq laa xam wóorul. Modou Mayaay. Modou Mayaay. Aliou Sow depuis Maroc Khalil Sow. Aliou Sow maa ngi Aliou Sow Aliou Sow maa ngi lay nuyu di la ziar. borom Maroc borom Maroc. nuyu waa Maroc yëpp nuyu waa Maroc yëpp. moom xaas. Seydou Noël maa ngi koy nuyu di la ziar. saa yu bëri tax na xaalis. saa yu bëri tax na présentation présentation présentation kàddu war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamu déedéet déedéet Baye noonu ay jopati Baye Fall la mo poti Baye Fall waaw moo nekk noonu Sall mooy ngeen lu xonk li ngeen lu xonk li Baye Fall mooy ngeen lu xonk li Baye Fall mooy ngeen lu xonk li ba ana leer ñaari xale yaa ngi ci biir lamb nangu ak lamb bañ waaw tey di 8 mars bisu jigéen ñi ma ci sargal sama jigéen ñi bopp Bye. Baba Golo Kuntal, Budi Bhai Pal, Saru, Bhai Pal, Saru, Bhai Pal, Saru, Bhai Pal, Saru, Bhai Pal, di ñëpp jóg ñaari xale yi am bu yaakaar dañu seen premier grand combat ñoom ñaar jigéen ñu lego ci fulaas bu ayda Baye Bada plié Baye Bada dox Sénégal bës nuyu ma waa Sénégal bës caam sama xarit bës ndeysaan Basiru Njaay nuyu ma ko eh pour ba ba jël tàgg bi pour ba ba pour ba ba jël na salu pour ba ba jël na salu da la topp tàgg bi daw tëj ko pour ba ba jël na salu ma dawal ma si pour ba ba ma dawal ma si pour ba ba mas Mas dá o mesmo para o Bavag.